dalal leen ci plateau bi Safia maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax ça va. ça va très bien et toi. kontaan naa jàkkaarloo ak yow encore une fois. vers Sénégal rafet na de. merci beaucoup gis naa la kontaan nañu merci <laughs> bonsoir à tout le monde nuyu nañu leen ziar leen bu baax a baax ci fi ngeen nekk on espère que tout le monde se porte à merveille grand plateau. spécial tabaski donc équipe bu gis-gis comme chaque mercredi et chaque dimanche dañ fiy nekk donc tey aussi ñu ngi fi euh, maa ngi fi ak Benoît Prosper Aminata Paye et comme d'habitude à mes côtés Père Mbaye Ngoné Fall papa maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax mbaa ngi ci jàmm. di ko ñaanal téléspectateur yi nga xam ne saa su nekk ñu ak gis-gis tey rek gis-gis xam nga doxu na mi ngi grand plateau. Mhm. ngeen def ko seenum xel. Mhm. li fii ak nuy julli yàlla nañ ca sunu borom yóbbu ak jàmm gis-gis mu ngi ci biir grand plateau. Mhm. nee na Aïcha bu gaamaa di saare maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax a baax. di la gërëm di la sant bu baax. sa mbokk yaa ngi lay nuyu bu baax. depuis gendarmerie caaro yi chef sàll ma nga fa moom it mi nga dëkk gaamaa di saare. waa Tijaani an mbokkam la nijaayam la ju wér mu ne ma nee na ay chemise de sama mbokk la chef Sall maa ngi lay nuyu baax chef Dia sëñ Fallou xaar maa ngi lay nuyu ba Afe maa ngi lay nuyu Malick Niang fàttewuma kenn waa brigade gendarmerie bu Thiaroye fàttewuma kenn maa ngi leen nuyu bu baax. di nuyu na mbokk yi. ndax xam nga ni gis-gis dafa toll foo xam ne fii mu ne nee na Aïcha dafa wërum réew. ba li muy guddi guddi ni ngi koy xaar ñu ngi ci salon yi di ko xaar genn góor nee na ma gis-gis léeg-léeg yéen a ngi gis-gis ci palateau bi di am coow waaye ci biir kër yi ci biir néeg yi ak saal yi dina am ñu toog doot nu mën a jóg gaaru wàllante yi daal di commencé léeg-léeg nga wax loo xam ne doonu yaakaar ne doonoo envoyé message góor gi te fekk ne wallaay dafa tombé rek mm-hmm. xaw ma ci dara wallaay xaw ma ci dara léeg-léeg sax nu xeexoo ci biir saal yi léeg-léeg nu xeex ci biir néegi ndax soxna si day yendoo loo xam ne damay ñëw jaar ci digg ba te ni ma ko xamee laa ko léeg waa ji yendoo loo xam ne damay ñëw jaar ca te ko xam ñii nag ñu ngi nii ku ci mel ne Daouda Sarr bu boox moom it def ni nuyu bu baax a baax a baax a baax ku ci mel ne Bada Jonn moom it mi nii nuyu bu baax sëñ Modou Daaru Muxti li nag mooy def li nag yi nee na waaw ma waaw waaw ak sëñ Modou le DG c' est Serigne Modou waaw mais ma Diop aussi ma nga fa ci kër ga mais le DG c' est Serigne Modou moom moo fa nekk maam Ibra Diagne bu Faat Diagne ca Ndeela bu Abi Diop fàttewuma ko fàttewuma As Dieng bu maami fàttewunu kenn As Silla depuis Paris waaye mi ngi dëkk njekki naan Silla moo yaat ma moom it ak jëleer lu Silla As Cissé mi ngi fii Caaroy Géej waaye ma nga Espagne moom it di ànd ak ñoom euh, Boubacar Diba kalabaabu depuis Kébémer fàttewuñ ko ki nga xam ne mooy Omar Ndiaye jolof jolof nekk si Kaab Mbaaw ñu ngi koy fàttaliku bu baax Bàcc Jóob Ndey Kebe fàttewuñu Laat Caw moom it kenn mënu ko fàtte El Hadji Maman Serigne fàttewuñ ko ñoom ñëpp ñu ngi suivre gis-gis bu baax a baax waaye nag El Hadji Jibi Gueye bu Ndàngura le grand entrepreneur de Mbàkke Kajoor ñu ngi koy nuyu bu baax soxna Ramatulaay Njaay moom it ñu ngi koy nuyu bu baax Cheikh Fall Colom Fall Cheikh Fall yaay Anna ñu ngi koy nuyu bu baax Anna Dangoura ñu ngi koy nuyu bu baax naan leen xaar leen gis-gis hmm. gis-gis moo toll foo xam ne Sofia fii mu ne actuellement moo ëpp audience ci réew mi hmm. soo ko nangoo soo ko nangul gis-gis moo ëpp audience ci réew mi waxuma la ci télé yi moo ëpp audience ci réew mi ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu baax leen gërëm leen sant bu baax hmm. di ñaan ci barke Cheikh Mouhamadul Habib Mbacke ibnu Sëñ Abdoulahi borom dër bi rakk Serigne Cheikh Mbacke le lion de Darou Rahman Serigne Abdou Kandji bu Darou Rahman ñu ngi leen nuyu bu baax a baax. Ami Sakho ñu ngi lay nuyu. jërëjëf bu baax a baax bonsoir Ben. ça va. ça sant yàlla bu baax. maa ngi leen di nuyu di nuyu ñu ma bokkal plateau bi yëpp. nee na Aïcha. bonsoir et heureux de te retrouver encore ñu bokkaat plateau bi. <laughs> et euh, di nuyu mon ami Père Mbaye mon jeune frère Prospère di nuyu Aminata Paye et puis di nuy ñuy seetaan gis-gis yëpp ñi nga xam ne ñu ngi bitim réew tey damay jël nuyoo bi nag beral ko sama benn jigéen ñu koy wax Yeta Prera depuis Paris Yeta Prera merci euh, ni nga bëggee gis-gis ak ni nga ñu bëggee tamit noonu lañ la bëggee et euh, di nuy tamit euh, sa xarit bu baax bi ñu koy wax Margot yaayu bébé Fatima du nuyu Sicap yëpp ñu dëkk Sicap Liberté 1 Liberté 2 Liberté 3 ba Liberté 6 extension di ñaan yàlla yal na yàlla def jàmm Sénégal def ko si àdduna bi yëpp et euh, di wax gaa nañ leen fagaruwaat parce que feebar bi mi ngi fi waat mhm. nañu fagaruwaat ngir yàlla rek jàpp si ba nga xam ne li ñuy xaar duñ fa yegg daal yal na yàlla def jàmm Sénégal def ko si euh, àdduna bi yeeta again Préra bonsoir. merci beaucoup Benoît kontaan nañu bu maa ngi santaat yàlla bu baax. ayca alhamdulilahi rabil alamin allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. santaat yàlla bu baax julliwaat ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam di kontaan effectivement bokk e, ñi ma bokkal plateau bi di wax ne lii e, li ñu dëgmal tabaski moo ko waral yàlla na ñëw ak jàmm bu ñëwee yàlla nañu fi fekk. bu ñu fekkee yàlla nañ ko tal nest pas bu rombee yàlla nañu fi bàyyi ba déwén may wax rek ne euh, yàlla ku ne xam na li la doy su la joxee lu ëpp li la doy dafa bëgg nga jottali donc nañu jàppale néew doole yi ba ñëpp am lu ñu suturloo am ñëpp am lu ñu béggee ci boobu jour loolu la ci yàlla jublu n'est-ce pas di gërëm di profito waale di nuyu ñi nga xam ne ñi ngi seetaan di ñu béggee fii ci Sénégal ak bitim réew di ñaan yàlla mu dolli jàmm ci réewum Sénégal amin ay ci kontaan nañu bu baax Aminata bonsoir. bonsoir Safia. ça va yaa ngi ci jàmm. alhamdulilah. di sant yàlla bu baax ci dellu si bi ñu dellu di nuyu Nene Aïcha. di am mbégte loolu partagé ak moom euh, instance yu mel nii di ko féliciter aussi si travail bu remarquable yi nga xam ne mi ngi koy abaat. di jaajëfal di nuyu Père Mbaye Ngone fa na mu naa trop xaritu Ndakaaru xaritu Sénégal. xaritu bitim réew ñu ngi lay Obama yi. effectivement Obama monsieur le maire. waa sant voilà ma fay jaaree di nuyu waa Mbaaw yëpp sama dëkku Mbaaw. ñëpp Mbaaw voilà mu ngi noonu di nuyu le jeune homme le plus beau le plus mignon euh, Benoît <laughs> mais nag di nuyu tey di beral nuyu Prospère. ah Ndiaye macha allah merci beaucoup sama jigéen merci beaucoup sama jigéen rafet na trop. merci beaucoup ah, merci beaucoup ah mën mais yaa leen gën a élégant. merci beaucoup sama jigéen merci beaucoup. voilà du nuyu niim garabu niim bi toog fii nii. d'accord kontaan bu baax a baax <laughs> Néné. oui alors ñu bàyyi leen rek ngeen continuer ngeen waxtaan. ubbi waxtaan wi euh, commencer gis-gis en tant que tel. d'accord donc kontaan nañu bu baax a baax papa dañu lay joxaat euh, kàddu gi rek. waaw doon may jox kàddu gi ñëw ci li ñu nar a euh, nu mu gën a gaawee rek parce qu'on a juste une heure de temps pour en euh, parler euh, daal di mën a dem ba dimanche incha allah. waaw waaw loolu dëgg la nee ne waaye xam nga nee ne. Uh-huh. Ah, mbaam mu yeex te yóbbu ab sëf moo ma gënal mbaam mu gaaw a gaaw. te du uh-huh. yóbbu ab sëf. papa. ñu nu yeex yeex. Uh-huh. nanu dugg YouTube wala nu xool internet yi wala nu xool ñaata moom la gis-gis di daaneel. loolu ma ci ëpp importance. mbaam mu yeex yóbbu ab sëf moo ma gënal mbaam mu gaaw te yóbbuwut ab sëf dama leen ne muy làmb ji man maa la ko promettre lépp fii lay mujj promoteur yëpp fi nañuy mujj mbër yëpp fi nañuy mujj mhm. seen TV mhm. ndax moo fii meilleur ki gën a xam làmb fii ci senegal fii la nekk barka borom Touba. dëgg la Fall su dee course bi dimanche la drapeau chef de l' mhm. ay ndaanaan ndax ku mel ni professeur Sakhir Thiam nara ñëw indi buraax te moomoon komet démb ak bërki démb moomoon jàmmalaay un moomoon jàmmalaay deux kooku ku jara bàyyi xel la magistrat war a ñëw ba papis war koo indi écrit ah, kooku dafay doy waar de fu ne magistrat ñool bët ko daat ne Auguste ne Médina daat ne Daaru Sam kooku drapeau chef de l'état xëccoo bu metti moo fay am comme diggante mbenn laam bukki daaya yu moo ji duma yéen nanu meloon nu ëlbatiku nu ne Omar Bao un jeune Mohamed mi ngi def lu nekk ndax Amin Omar moo raw bërki démb expert ku nekk xam na ko nga ëlbatiku duma yéen daal di ëlbatiku daal taxaw ah ki nga xam ne moom mooy daaru xuddoos daal di ñëw muy course bu doy waar seen TV laa bëgg mu def direct bi su ko defee dina dégg li fas ma ne ak fas yu njëkk yi nga xam ne démb ak bërki démb ñoom ñoo fa doon dawal ndax kii daf may fàttaliku yaay jee muy papis waaye kii tamit daf may fàttaliku lili baawo muy professeur baawo lili baawo la may fàttaliku gaaw leen ngeen ñëw en masse fii la lépp nekk fii ci kër gi mm-hmm. buggaan ñu ne ma nga jëm fan Mbàkke ba xam nga fa mu jëm nenne. Mbàkke. waaw fan la fan la jëm papa. ma nga jëm ca Ndoyeen Ndoyeen. ca pencum Ndoyeen am na fu ñuy wax sax jumaay Ndoyeen ja soo wàccee Mbàkke rek soo ko mais day jege ndaxte day am opportunité waa Daaru Rahman gépp doonuy ñëw bëgg gis bugaan lan lay wax. ñi nekk Mbàkke ñëpp doonuy ñëw bëgg a xam lan la buggaan di wax waa jur bel Jurbel yu ñëw. ñi ko wër ñëpp doon ñu ñëw te xam nga moom dafa bokk Touba. su fëggee gémmiñam ne tuubaa jóg leen rek Mbàkke jóg leen ñëpp doon ñëw wuy si ko. ndax li mu àndal ak taalibe ndax président Ablaye Wade dafa mës a toog ak seen saaliw daal di toog ci suuf seen saaliw ne ko jógal toogal ci kaw mu ne ko déedéet duma toog ci kaw mu ne ko jógal toog ci kaw mu ne ko déedéet du toog ci kaw mu ne ko at yi mate na ko. ndombok tànk gii am na ko jógal nga toog ci kaw mu ne ko waawaaw loolu de dëgg la li nga wax bàllaay sa buri waaye nag taalibe gi moo ko fi ëpp dafay fekk taalibe gi mhm. te bugaan fa mu jëm dafaa fekk taalibe ga sëñ Moustapha Ndiagne mooy sëriñam taalibe sëñ Mbàkke soxna loolu la mhm. kon yéen na ngeen xam ne bugaan a ngi ñëw mi ngi ñëw waa Daaru Salaam googu nga xam ne soo déggee soxna xari Penda école ba moom na nga ko tuddee naan Amari Fall xari pend Serigne piir nanu koy wax du bàyyi ndey daba baax koofu ñu ngi ñëw kon bugaan a ngi ñëw mu nga ñëw foofu ca ndóoyeen ca pencum ndóoyeen ga ne ngeen ko xaar bu baax ngeen déglu ko bu baax a baax li muy wax ak yéen nee na Aïcha fi nu jëm dafa doy waar mooy fa nu jóge woon ñu ne désordre familial daa ne quand l'heure de la prise de conscience sonne désordre familial maanaam man nag la ma cee génne woon bari na mais ñoom ñu tànn fi leen neex désordre familial di nga gis ay doomi baay yoo xam ne ci biir kër gi désordre dafay am completement ndax ak mbañeel day daal di commencer te moonte doomu bàyyi du noonu doomu baay du noonu soo xoolee maa Ibra Diagne ak gune yi rek xam ne doomu baay du noonu soo xoolee aas jeng ak abo rek xam ne doomu baay du noonu maa mi maa ngi lay nuyu bu baax doomu baay du noonu soo xoolee Abdou Kandji ak ay rakkam doomi baay du noonu soo xoolee maam Ablaye le trésorier de l'État ak ay rakkam ñoom Khady Fall Parma xam ne doomu baay du noonu mais dugg nanu foofa ba bën waa am lu mu ca sërxal ñu ëlbatiku ci diggante yi maanaam biir liggéeyukaay bi barab bi nga xam ne ci la ñëpp yi daje di liggéey famille ngeen am déet Sofia bërëbu liggéeyukaay bi ma yaakaar ne famille la. waaye dinañ dem ba gis ca tiiraaymaa yoo xam ne ak xëccoo yoo xam ne dem sax ba di xar fa fuufante ak di dogante ay reen ak ku nu dog sab tànk fàq aw yat mel ni ji koy jaan kooku day am. waaw ma yaakaar ne sunu nee état ñëpp ci bokk ay ministère la ak ay département ak yëpp waa lan moo tax su ngit ne bëx ñu jéem a dal ci kawam jéem koo gaañ ñu ne Bougane ma nga fuuta ñu dogaale ko daal ne doon xeex moom doon nañu xawi suturaam doon jote ak moom ñu ne Macky sàll ma nga jëm bërëb sàng ñu yëkkati ay xeet di ko ko dóor ñu ne diw ma nga jëm bërëb sàngam nu dogaale ko dogandiku lan moo tax désordre boobu. ñoom koy wël nañ seen bopp. ba ay mbër nañu. nanu xaar ba bis ba ku nekk lu la suñu borom may nga jël. waaw kii. nga xam ne dafa taxaw jotewul ak ñoom dara yàlla rek moom moo xam doomu aadama doomu aadama la bañ koy ëmb di ko matu di ko wasin ba mu xëy toll nii kenn fekk siw ko kenn xam nu dafa xëy rek nu jàkkaarloo ak moom daal di koy gis jooy na daal di ne amatuma bàyyi te àddina bi yëpp famille la aw ma cëslaay aw ma wéeruwaay nu xool ko daal koy ne du fi amee yëkkati ay baat ëmb ba mu bari tey ko ci ginnaawam baay ba ne soo ma gisee di ma ree ma won la ginnaaw nga yàq sama der du ma jar dara yëkkati ay baat di ko teg ci ginnaaw doomu aadama joo xam ne suñ la woowee na la kaay ndax yaa gis nga taxaw ne déedéet gisuma de te man Mbaye Ngoné Fall ñett ngi nii duma ko jiin doomu aadama borom bëti guddi ab sàcc ak borom ñaari tur yi kooku moom ñemewuma ko xaw ma sama njëbur demul foofu waaye nag yow soo taxawee li góor gi si Dieng wax ne damay yéeg bëgg su ma dee yéeg képp ko nga yaalu sama tànk ma wàcc diggaale kook yow dem delluwaat dinaa yéex a egg lool góor gi si Dieng moo ko wax de ñu koy dégg moo ko wax Pape Cheikh Diallo ñu koy dégg yow nga taxaw daal ne ab taalibe nga nga ne ab baay faal nga nga aju ci maam Cheikh Ibrahima Fall ak ko càllalaam te maam Cheikh Ibra Fall ne lu ma déggul ci ëttub sëñ Tuubaa boobu lu dul diw ëmb na wasin na te doonoo xam ne góor laa moom moo tax waxunuma ko nee na lu ma ci déggul amut daal di ëlbatiku daal ne eh yéen aju ci man ëllëg jamono ngi ñëw joo xam ne ñaar ñii faw faw faw di ko dëkke muy tuuma ju dul dëgg maam Cheikh Ibrahima Fall ko wax de nee na surtout ñu aju ci moom nee na dina nu sonn lool ëllëg ndaxte tuuma ju dul dëgg dinay tegu ci seen kaw maam Cheikh Ibrahima Fall Aboori Dial moo ko wax yow na nga bëgg ku la xuri nga ëlbat ko taxaw daal di koy jooy jooyal continuel jooyal loolu moom dootuma ci wax dara soo mënee jooy wala nga bari ay rankooñ wala nga bëgg ku moyaalu sab tànk nga wàcc diggaale ko moom yaa xam demal waaye de ki nga yaakaar moo waxoon loolu doo noppalu de fi mu ne nii lu sa baay amutoon coon sekk lu rasulullahi alayhi salaatu wasalaam